foog ma dugg town rek la last premier round koj kaar bi ci tali bi sëfër bi dóor ma code far apprenti bi fëgg wàcce ma dugg toog Versailles fekk fi maire yi jaay jën kaar bi na tekk na ñëpp ne selaw doo dégg lu wiiru ngelaw xaftaan muy laaj paas ku yoxal mu taxaw kaas xàmmee wul sax moroomu ndayam sëfër bi waaye di am bi xamali dañu reew a reew ba dof dañuy dund ci tali bi xam nga moos de dafa tar. deux heures ah? kii suñu indi woon soo leen di yab doo leen xool ñoo leen di yab kaar bi la ku mu neex boo yore sa ah. nga yëg man de damaa waaru ba mu juddoo ba léegi maa ngi door a teg yàmbaa sama bët ah. man damaa waaru ndekete kon kaar yi sax lii ngi ci man de waaru man sax xam nga lan la may ma ma wàcc man wuy ma fëgal ma may ma ma wàcc man waaw man kaar bu ñuy ñëpp ay ay jaaykatu yamba dama ci dul dugg may ma ma wàcc si kanam may ko waaw may ma ma wàcc man kilifa laa am na yoo xam ne xajuma ji ah bu ma juddoo ba léegi maa ngi door a teg sama bët yamba tey jii buñ ma boole woon fii yóbbu ma fu ma jëm fu ma jëm waaw may ma ma wàcc may ma ma wàcc waaw may ma ma wàcc may ma ma wàcc may ma ma wàcc may ma ma wàcc yow may ma ma wàcc dëkk bi léegi. wóorul lu waaye di def na koy xool léegi dëkk bi wóorul. dafa am loi policiers yi seen liggéey la ñuy def. dëkk bi wóorutul. koo leen yab dee leen ko xool. salaamaaleykum na ngeen def. yéen yéen yéen xoolal ngeen passe bon wàcc doon wàcc. yéen a ko si jàmm. السلام عليكم حلا بما النين انا فايب فاينا لا روتي مال السما يلا سينا كيفو نمتي ديني دونوتي السما دونوتي السلام عليكم مالكم سلام دا تي دوي السفر دا ولا نانك دا ام امريو دا دنگ اي جوغل في ني بوغ راي الدول نانك ولا لا يا خنا تو دوم تبان دا إيه، تو تبان ولين دا لا دون سونو ني ني خي واخ ان بو تي با فري ني في بوغ راي السنغال امانه بي إيه، امانه بي فاغا واتش اوتو

impasse moo gën dara metti ma dugg Sénégal nga ne occupé nga yow yow kenn du yow ci mim réew. mais si kanam nga waaj bu fekkee yoroo CFA nga waaj dégg nga. nga waaj yow bu fekkee yoroo CFA nga waaj dégg. wàccal oto bi di nga ma yóbbu fu ma jëm. maa ngi waaj. ma waaj di xewlu paas. wàccal oto bi. eh dañ lay waaj seet du nga ko yóbbu kii nañ ko waaj parce que dafa la paas nit ñi. paas paas yow yaa may wàcce oto bi yow. may ma doole bi dana wuya la yor may ma wàcc. jógee fi nga jógee ba fii nga ne yow yoroo CFA ci même réew. di nga wàcc de. waaye nga may ma wàcc nee na nee na uguya la yor. ma ne uguya la yor waaw. CFA moo fi daw. 100F loo paase yoroo ko di nga wàcc. fiiru CFA wàccal oto bi fii CFA moo fi daw. da nga ma yóbbu fi ma jëm laa la wax. eh xaale ah yow yow yow loolu daal wàccal oto bi waaye. ma ne wàcc na oto bi laa la wax. non kii laa duwaat oto bi te uguya la yor. ma ne wàcc ma. yow bu nga coow de wàccal oto bi nga la am. yow yaa ma gën a bëgg coow léegi yow lan la lan moo waral coow li lan la la uguya nee naa ko uguya dawul fii CFA moo fi daw. sëñ bi jox ko 100F neen doo joxe bi naar loxo ma. ah jox ko 100F yi damay liggéey aw ma 100F uguya la yor. yaa wele xajte baabe la sil ba jëriñu ma soore. ma ne déglu ma déglu ma mbokk xale xale. gis nga sa apparence bi dafa ma bëgg a fantoo ma ne yorul CFA ma ne uguya la yor. ma wax ko ne ko ah mu ne ma de di nga bés lan la bëgg a. bu ñëpp yore uguya man du ñu la la ñuy la la ñuy versé sëñ bi bul tooñ man sama jabar naar la te dama len beug bu len di ben problème. ma ne yow warul xatte bee bi. ma ne loo bëgg nekk yow warul xatte bee bi seen kër yow warul xatte bee bi seen khalal xoolal bi bi ma fentoo. jabar yi yow warul xatte yow warul khatta bi la la atul ndox de xam ne sori meen. yaa wuli seefaan yi yaa wuli lim yaa wuli xatte bee bi yaa wuli xatte bee bi seefaan yi. yow ku sa la fee waay. nan dem nan dem nan dem. nan dem demal demal demal xaw nga xooree xaw nga xooree. xaw nga xooree. am nga sax doo ko defoo ba nga defoo ba nga sax dama sa yoon nga boo ko gisee ndigam li njool lii moo ci ay kii léegi nii kenn du moom ci mu réew ku mu defar du yàqu waa Sidi pour yooyu daal air la manqué voyage doon juyee xam nga ni bu aree dafa juyee ak bële xam nga li muy wane ni day ñoo may pono nak li muy def ni day wane ne ñaar ñaar ñaaral bi amal na ko njariñ day neex ndëgg moo ci man de ñaari jawala féete asamaan ginnaaw moo ci man ah ba ñaari waa gaaw leen ci bële nag. Siri. Siri ñaari location amoon. sama waa ji sama dëgër bopp la def. ah loolu kat moom ñëpp ñëpp xam nañ ko moom. dëgër bopp la def fële lan dem euh, Tivaouane yóbbu location foofu ñu tourné tali bi am man ko jaaral droite ñu teggi génn ji lam-lam mu mel ni moom a gën a xam dëkk boobu. waaye nag lam-lam da nga dëgër bopp. lam-lam lam-lam ba ma fay na jaaree welo wala yow da nga xàmmeetul welo. welo daa changé. waaye ba pare dëkk ba lampay leer mu rafet. waaye noonu la mu mel waay. waaw léegi beneen bi mooy lam-lam ba ma fa jaaree fa ma wiiri fa laa xamoon xaw ma ne ndox mi noonu la ko def. Ah, waaye mën naa fa loo loo ci gis. mais carrière bi nga jaar moo tax ñaari pune yi am problème. waaw léegi lam-lam googoo ma lam-lam ma rey daa baroon ay yooni teg teggi waaye yoonu teg yooyu yëpp ñu fatt ko yenn ndox mi fa jaar ma jaar ci biir àll bi foofu su mu ne la jaaral fii doo jaar foofu ah non dafa dëgër bopp léegi ñaari pono yi lépp am nañu problème si réew après dimbaluñu rek si benn pono bu ñu def secours après dimbaluñu si loolu rek balaa ñuy dem ñu jógee fa euh, démb ñu am location nootu nooto nan la ñuy ñëwee wàcc nit ñi ba pare ma xool mënu laa gis dëkk bi Jibi Jaw laa nekkaloon sa sa waa ji waaw moom pire la fa la fa représenté rek waaw nekk fa xale boo xam ne def jàmbaar la jàmbaar wax dëgg yàlla ka fa nekk jigéenu mbootaay wax nañ ko ñëpp moom la ñuy waxtaane nooto neen ku baax la kafa ka fa nekk nii defu fa dara ba dara booloo jeex na nga ko fa jëlee ku liggéeyul nag dana la day wax rek wax rek la eh, ma Sidi de kanam bi xoolaale ko xoolaale ñu panab kanam bu arrière bi dafa usé ñaar yëpp a kii waan bu fekkee daal baax na ñaar benn pneu ñu dem loolu rek la Sidi xoolal ñaari pono yooyu si ginnaaw bu fekkee pono mënul baax nga añu benn suñu samedi ñëw delloo la ko moo gën. nañu abal loolu kay moo gën defal ñu loolu Sidi defal ñu loolu boobu ci kanam xoolaale na ko na ko dindi rek mu abal ñu benn. xoolaale boobu. ba ñu ñëw añu benn rek bu baax

waaw ñi di sama basketteur yi. ñoom la kay. xamee wala xanaa entraînement ngeen jógee ah ma xamul xame naa ne def naa leen deux fois ngeen jógee terrain. xamee leen la. Ah, neex daal da am jom yéen daal fi ngeen teg seen tànk foofu la rek loo leen loo am jom doyul sigil waa senegal bu baax ñépp kontaan nañ si yéen ndaxte indi ngeen ñu Coupe fii sunu réew yéen ay jàmbaar man kontaan naa si yéen trop dama dëkk bi yëpp kontaan nañ si man daal maa si basketteur yi waaye suñu équipe nationale bii jaralul ma sax a jógee fii dem fee contre Algérie loolu du ma leen ko mukk si àdduna. baal leen waay. naari téye si terrain bi di leen gaañ ñu mel ni ay jigéen. ay waay. mel ni ñoo xam ne mos ñëw football di daw di jig ah na maanaam bu demee ba nit ku weex. di néewal doole ni ko ñuul kay nga xamante ne war nañoo xoolaat suñu suñu équipe nationale bi. Ah? bay waaw. xam nga lu ma métti suñu contre ñun ak Algérie. waaw. bii bi bi may dugg. waaw. am na benn joueur Sénégal boo xam ne da nga ne day naafi la rek. non ñoom ñëpp a yem noonu la ñuy def. man bés bi loolu moom moo loolu beneen bi mooy suñu équipe nationale bii dañoo war a saytu seen i mbir. mu si gàllankoor. noonu la ñuy xaalis ñoom bu ñu nekkee seen seen dëkk bi seen club bi dañuy football football ba seen xol bi di wadd mais bu ñu ñëwee Sénégal cok cok cok cok cok xolo xolo xolo balaa ngay dee balaa ngay dee journaliste bi xolo xaalis balaa dee journaliste bi ñoom bu ñu footballee fii ba pare journaliste bu leen di jël bu leen di jël télé bi waaw je vais je passe passe passe day changé sax seen doxin. waaw est-ce que xam nga dara. non te loolu baaxul moo tax booy booy yor équipe équipe euh, équipe nationale plus secteur. waaw ñu demoon see volley ball. waaw xale yi am jom lañu bu nay am jom parce que boo xoolee équipe nationale baa ngi nii plus secteur bi 300 a ngi waaw ay jàmbaar lañu de. dañuy jàpp tubaab bi di leen duma rek. ñooñu ay jàmbaar lañu. man am naa ci ñaari xale yoo xam ne danoo mën a fubal kenn ci Papa Diagne la ñu koy wax. Diop gii la dëkk Laayeen booy jàng la ñu koy wax kenn ki Sila la ñuy wax Sila waaw kenn ki Sila la ñu koy wax ba ci coach bi muy Sangale bi nga xam ne moo yor mooy équipe nationale se secteur bi moom da doon fubal ci équipe bi ñetti at a ngi nii. ma ne waaw sëgër bi nag. waaw waaw xam nga ñoom. bokkooy bandi ñoom bi ay jàmbaar lañu. nee nañ góorgóorlu leen ngeen indi coupe yu jigéen ñi nii. basketteurs yi basketteurs yi ay jàmbaar lañu mooy mooy xale yi mooy xale yi ngeen coupe bi. xale yu jigéen ñi ah day na waar de. ba pare wax ku ci mel ne ay Sadio Mané ay Gana Gueye xale yi am nañ jot waaye terrain yi ñoo baaxul ba pare sénégalais yi bëgg mystique di yàq rek ah mystique bee bari Aliou Cissé lu mu def ñu yàqaat. ah man ñoom ñëpp laa yemale ndax tant que indiwuñ fi coupe man mënu maa wax dara si ñoom coupe moom tant que indiwuñ ko Sénégal seen tànk yi mel ni ndox amu ci mel ni ñu mel ni ñu faam. dañ ko war a defar ba mu noppi stade Sénégal yi stade Portugis. boo demee dana koo bay dana koo bay suppame ba mu fees ñax mi moo moo raw suppame. stade stade Thiès bi daa toolum ñaam bi rek amuñu stade yu baax ba pare yàq mi bari na lool. xaale stade Thiès bi comme toolu ñaam bi stade bi. comme toolu ñaam bi. bu ñuy ba pare. bi bu Thiès moom baaxul comme toolu ñaam bi. am na bu ñuy defar. a dindi gazon bi lépp stade amitié moo fi nekkoon. gazon boo xam ne comme toolu bu jug daanu. moo jar a waaye ñe artistes maa leen wax bàyyi ba ba ba Sénégal wala qualifié ngeen nekk fii ci ci di way ku nekk di génne clip c'est équipe nationale équipe di jéj jéj. waaw nañ koy seen gémmañ rek dañuy commenté seen làmmiñ rëy koo ci gis mi ngi naaye di way nu ne la ñuy way. sëriñu ndaw yi naan dañuy seet match yi dañuy um bàyyi kenn waa ne senegal day gagné wala day qualifié rek suñu joueurs yi nga xamante ne mel ni seen eau bi amul ndox. bo bo bo sama xol neexul waaye bo bo boo àggee boo àggee nga gaaroo bi ñu wàcc. Eh, Dakar Dakar Dakar Dakar Dakar Kër Massar Kër Massar Kër Massar Fass Ngor Wakam Yoff Yoff Parcelles Assainies yow faja takk dàll yi bëgg a dugg town poste bi diisul nu ma def foog ma dugg town rek la last premier round koj kaar bi ci tali bi sëfër bi dóor ma code far apprenti bi fëgg wàcce ma dugg toog Versailles fekk fi mairie jaay jën kaar bi na tekk na ñëpp na selaw doo dégg lu riiru ngelaw xaftaan muy laaj paas ku yoxal mu taxaw kaas xàmmewul sax moroomu ndayam sëfër bi waaye di am bi xamadi dañu reew a reew ba dof dañuy dund ci tali bi xam nga moote dafa tar deuxième arrêt ñu taxaw xaar coxeur bi yebal kaar laaj mandat ambu bi siisu coow li bëri da ñëpp di gestu jaayante perek la ku la gën a bandi la ku nekk kaar di ci kaar ni amoo leneen lu gën kaar noo def rek jàpp ci kaar dund kaar yi dafa tar amuñu pexe